asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëgg yi ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV tey nag ñu ñëw caaroy ñu seet ci champion mu nekk koo xamante ni rakk la ci champion bu mag muy bay Baye Mandione Junior nekk rakk ma Mandione mbër ak diine nee naa leen amul mbër bu mag amul mbër bu ndaw képp koo xamante nii rek incha allah ngeen bëgg ko dañ koy seet si ñu fas yéene waxtaan ak moom ci làmb ak ci lépp mais comme que nag koor gi moo dañuy waxtaan ak moom ci koor gi wax dëgg yàlla gis ngeen li may lamsalee mu sonn euh, Basiru laaj nañ ko dugg nañ ci këram laaj ko ci néegam ñu noo nekku fa dafa mel ni ci territoire bi la nekk de dañuy dugg xool mbër mi nañ lay dundee koor gi aca bas ñu dem euh, bas euh, dafa mel ni champion bi mu ngi nii de Baye Mbañoon junior ñu ngi ko fekk mu toog xaw ma daal fekk dañ ko fekk mu julli ba pare c'est pas xamuñu ñu ngi daal mi ngi fii toog nekk ci téléphone am xamuñ nag lu muy def xamuñu day play xamuñu ba xam day wuyu téléphone nañu waxtaan ak moom mi ngi nii jàkkaarloog ñun bàyyi ñoon ci ñor ah, mbër maa ngi lay nuyu. waaw ngi lay fay Mia. waa di nuyu seen site bi wasaare làmb waa di wax loolu site bu mag la ñëpp a ngi koy xam nga di kontaan si li ngeen def nii xam nga da ngeen bett sax waaw mais kontaan naa si trop. mbër ak diine de lañu. waaw diine ñun moom ay taalibe Seydina Limaamu te suñ papa mus kalaf la bu mag ci affaire laayeen te dañoo yar si diine waaw te dañ koy dañ say dem ba mu jeex dañuy julli dañuy woor di dem daayda di génn asaka waaw loolu moom yar nañu si ñu si yàlla bu baax. ñu gis yéen laayeen yi du man sax mais yéen moom weex leen koo taam moom yéen laayeen yi ak mustarshid yi yéen yam ñu fekk la nga def sa balan da doon julli wala da doon def. waaw damaa toog nii xam nga rek sellal waaw laay ni moom xam nga ku leen xam-xamee leen ci weex ndax boo nee tey murit ñoo am nañ seen mandarga comme comme li benn la mais laay dañ leen xamee ci lu weex te lu weex xam nga dafa sell waaw moo tax ñu naan jàmmalaay loolu lay signifier quoi ci lu weex. Hmm. Euh, Bass ñoo ko gisandoo Baye Mandione Junior ñu fas yéene waxtaan ak moom kon ni niñ ko defee rek ak gaa yëpp mbër ak diine Bass dinañ ko toogee dinañ ko fekkee mu toogee après ñu tàmbali waxtaan bi. يا مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف a baax yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV kon ni ñu ko doon defee rek muy euh, diine ak mbër gis ngeen niñ commencé ñoo nañ fekk mbër mi ñëw gis ko mu toog ñu waxtaan ak moom ñëpp xam nañ ne taalibe Seydina Limaamu la muy bàyyi ma ñoon junior mbër mbër ak diine ñu wax te wax nga ko taalibe Seydina Limaamu mm-hmm. diine macha allah mbër ñu nekk ci kaw lu ngay wooree. waaw comme ni waaw ni jullit yi wooree rek. Mm-hmm. xëy xam nga. Mm-hmm. yow fajar dem julli dem jàkka ja boo ñëwee deux heures nga julli. cinq heures ngoon gi nga dog yaa a gën a xam comme ni ñuy wooree rek noonu lay noonu laay wooree. mbër doomu aadama nan la war a comporter bu wooree. waa gàttal tànkam si bu bu liggéeyee bu ñëwee ñëw toog seen kër bu mënee déglu arxuraan déglu bu mënee jàng arxuraan jàng bu mënee déglu ay xasaar wala si karak yooyu noonu ñoom seen daal di déglu bañ wax si jàmbur bañ wax si ma demba da burul weeru koor sax loolu baaxul man moog noonu laay wooree. Mm-hmm. weeru koor. Mm-hmm. nan nga ko déggee yow. comme si naka. xam nga dañ dégg ñu ne weeru promotion la. Mm-hmm. weeru ngëneel la. mais weeru promotion boobu weeru nga bi yow nan ko nan nga ko déggee. waaw weeru koor moom loo sàggan sàggan sàggan bu weeru koor ñëwee nag nga war a mën a xam nga bay sa waar li nga mën yépp si jaamu yàlla nga jaamu yàlla si li nga mën tuub ay bàkkaar mu jéggal la ko waaw di matal waxtu yépp xam nga weeru nga la daal waaw. man xaw naa fàtte nag de xam naa moom teel na maa wóor moom. Mm. ah teel na maa wóor moom mais fàtte naa ko. Mm. mais na au commencement doon naa xam nga rek waru gàlle yooyu noonu. Mm, say waru gàlle nu mu demee woon. waaw waru gàlle des fois weeru koor daan jot. ma ne gars yi damay dem Gambie xam nga. mais soo ma nee Gambie xam nga rek yaa ma gën a xam. <laughs> ah nga ne waaw boobu maa yi bëri si mbapat yeeg yooyu noonu mais xam nga dañ fa sama tante dafa ne ak sama mag ak samay nijaay yooyu noonu. bu ko defee rek xaw def benn vacance noonu da dem Gàmbi. su ma demee xam nga rek. topp ci cikin yi xam nga ñoom ginaar ñoom seen. su ma ñëwee fii naan yoo weeru koor gi ren gii Gàmbi saf na trop te yàlla xam na ni waruma. waaw ñoom seen mais loolu xam nga loolu dépassé nañ ko. kon temps yooyu da daan basé ci ñu doon wax mbër. mbër waru foofu nga waaw commencement nag xam nga rek affaire booy. xam nga booy doog a début si làmb ne ne si mbapat yi yow yow preuve boo ngandul rek amoo doole. Mm. daaw ñu tàmm jeex affaire yooyu noonu xam nga. Mm. moo tax daaw ñu bugg a woor mais boo demee ba xam ne lii la yàlla santaane te lii moo tegu mm. da nga xam ne loolu lépp ay caaxaan la. après sa lañ commencé nag di woor carrément. Mm-hmm. ñëpp mm-hmm. waaw jàng naa daara kay. Mm-hmm. jàng naa. waa nga jàng naa sëriñ njaay ma doon jàngal di ko nuyu. waaw mu def si man loo xamante ni di ndonga daara mel. mais nag damaa teel xam nga dama teel a muus ci affaire yi teel a bàyyi. Mhm. teel waaw. maanaam am maanaam am na ñoo xam ne dañuy jàng ci daara xam nga yàgg fa ay ati at lu xam dara. Mm. waaw man nag damaa ñëw xam nga. maanaam sama xel neexoon na ci affaire daal. Mm-hmm. Mm-hmm. na wàcceewu ma nag. Ah, ah. Mm-hmm. non daa non non daaw ma wor de. daara ja moom daan naa wor mais ci kër gi du ma wor. ndax daara boo wor dañ lay dóor. ah sëriñ. da lay dóor. sart comme ni ñu jullit war a def si weeru koor rek. ay dee wor di wax li si yàlla wax yëpp xam nga. Mm. bu defee nga ne fa di weñaar di ko wane damaa wor. boo ñëwee fii meer tàngalal la ceeb bi nga dóor ba baax dem ñibbi. Ah. yaa ma gën a xam. <laughs> daan nga tey daan nga dem xam nga dem yalwaadi ñëw nga ci affaire bi mu kii ñëw fomp génn ngi ñaan la sëriñ bi da woor. non non ñun nag daara ji ma doon jàngee amul yalwaan. Ah. da jàng ah, huit heures ngay dugg di nga ñëw seen kër añ. ngoon nga delluwaat daara ja. Hmm. mbër mm, tey ku ne mbër ak diine tey mbër euh, tey man su heure ndogu jotoon mm. ah ñu tegal ma café mm. tegal ma tàndarma tegal ma mburu mbër la nga si jël waaye mburu mburu moo gën a diis ak yi muy àndal ñoom seen waaye tàndarma tàndarma moom baax na pour tijjeeku la rek xam nga ndax moom lekk ko àjjana la ah. waaw tijjeeku après nga jël mburu man ay café yi sax damay sonal baay ah mais mais yow mburu bi da nga doo jël sax tàndaram. waaye tàndaram ah daal mburu laa gën a bëgg ko may tàndaram. mais mbër te doo tàndaram moom la ñuy tijjeetu. waaw mais su ma su ma baax na man lépp lépp lépp laay dóor. mburu meeg tàndarma bi yëpp. waaw mhm. ah. tey bu ñu la tegu tàndarma bi. Ah. mais tijjeew da ngay ñëw rek jël tàndarma bi rek kii. waaw maasaale ak la fa stable yëpp. ma wax la loolu de. Mm. te bu ñu la tegoon mburu. waaw tegal la tàndarma tegal la café bi. waaw da ñëw rek ñëw rek jël tàndarma bi. lekk. waaw euh, bu mu tudd man na mburu mi laa njëkk a jël. waaw mburu mi laa njëkk jël xam nga pour biir bi am dara koor dafa metti surtout maa nga war di entraîner day mel ni yow kese yaa wóor. Mm. waaw foofu moom bëri sonn nañ fa trop. Mm. waaw. mais mais yéen daara jàngaluñ leen ne que euh, woor euh, woor. Mm. tey boo toogee balaa dara nekk sa gémmiñ il faut que am na am na looy wax. waaw boolaa ngaa toog moom da naan bismillah. waaw fas yéene xam nga dangaa fas yéene woon woor. Mm. léegi booy doog da nga naan bismillah. mais waaw xam nga posé wu ma question boobu noonu da nga ne ma tegoon café ak tàndarma ak mburu ban ngay njëkk a jël. Mm. moo tax ma wax la loolu ba ma waxoon tey boo boo oree ngoon jot. Mm. booy dog looy wax dinaa la wax li ma la wax nii. Mm-hmm. kon booy dog lan mm-hmm. kontaan si yàlla li ma teg. Mm-hmm. waaw. après ndogu quoi. waaw daal xam nga yàlla moom lu ñu teg rek. waaw dañ koy dañ koy lii. dañ koy jël bu baax a baax. Gée. Hmm? Géewe. ñeenti rakka. waaw après nga teg ci safa witar. safa witar est-ce que loolu forcé la. ah li ma ko déggee moom dégg naa bu la neex nga teg ko si bu la neex nga bañ teg. Hmm. Ah, la rek. waaw. Hmm. Ah. Euh, ñeenti rakka. waaw. Ah. tey euh, nga jul takkusaan waaw taxawal waaw. ñeenti rakka ngay julli. si premier rakk bu mujj. bismillahi rahmaani rahim laay tari. te ci uh, Issa Dia saari yooyu noonu rek yaa ma gën a xam. ndax weeru kooram daa saf <laughs> jarul ay saari gudd. Ah, waaw ah. mais waa internet yi lay seetaan ñi nga hmm. ñoom ñoo lay bu baax a baax. Hmm. ñoom tey dañoo bëgg nga tari leen benn saar. waaw saar xam nga daf leen Fatiha rek. daan ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin amin hmm. tey ah, mbër tey soo waree am nga droit ah, wax ci nit loo xamante ne nekkul koor googu noonu est-ce que tey boo man boobu man ma wóor toog di wax naan basiiru lii basiiru lii basiiru laa te Basiru li may wax yëgu ko déggu ko tey euh, est-ce man sama koor googu noonu loolu am nga loolu day na si ay nitam rek day na si ay nitam man moom tàmm ma barki Seydina Mohamed nekkul li ma caméra yi tiim moo tax may wax man pour te dire ñi may xam nañ loolu si man man du ma wax si loo xamante ni si baatu ginnaaw bu xam ne bu toogee du si kanamam non non man ma genre boobu man lépp lu ma mën a wax si nit si ginnaawam rek su ñëwee mën naa koo wax te aw ma habitude boobu sax di wax nit si ginnaawam. si yar lay doon quoi waaw ñun moom dañu see tàggat loolu bu baax a baax waaw boo xoolee comme ku mel ni Baye Mandione de boo xoolee waxam moom chaque jour li ne si xolam lu lay dégager noonu la ñuy suñu papa bi euh, ñun moom dañuy jaamu yàlla waaw ndax dañu see yar ay taalibe say naa limaamu lañ dañu see yar mais des fois nag ñu ma jéggi raay bi des fois ma julli fajar julli tàkkusaan yeneen waxtu yi ma xaw a sonn daal di koy bër. Mm-hmm. waaw mais des fois ma matal yëpp. waaw dëgg rek moo neex yàlla quoi. Mm-hmm. waaw mais dañuy julli. Mm-hmm. mais jullit euh, jullit. wala ma la laaj rek est-ce que bu koor kese lañu war a jaamu yàlla. non suuf da ko war a def. waaw du joxe comme comme ma ne sama exemple bi mu génn àdduna. barki alxuraan bi mu feebaree dafay jéggi saa yi ne teg mais man damay xam ne kii day julli mais sans mënul dara mu leer kii jaamu yàlla la def ba nu mu génnee àdduna. waaw di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana ak mboolem julum na fekk ak suma yaay ñu noonoon ay mag yu baax xam nga tàggal ñu si diine ñun ñoo xaw a ne fii di dëng rek xam nga tey maire bu doon dund ba léegi sax man amaana ma du ma bëre. ndax moom bëgguloon sax ma ne fii di affaire affaire yu bëre moom jàngal ma santoon yooyu daal la ma santoon xam nga. mais sama papa daal moom moo ma doon lii forcé si bëre gi xam nga. moom bëggoon na làmb gi ma doon def bi mu gaañoo nag nga ay 2006 xale sax su ma daan bërentu ni danaa papa bàyyil bëre bi xam nga mais heureusement ba nga xamante sama carrière làmb fekk ko fi. waa sa fekk ko fi. ndax moom 2006 la gaañu. mais sama papa sama combat passé rek fekk na ko. mais kàngam. Uh-huh. boobu moom hôpital. man maa doon fanaan ak moom hôpital guddi gi. su ma jugee fa laay dem fanaani su ma ñëwee ñëw delluwaat delluwaat hôpital. Uh-huh. biñ ne suba la combat bi fa laay jugee hôpital barki Seydina Mohamed sama gars yi ñoo doon mer ne ma da ngaa war a ñibbisi. ndax combat bi daf ñoo jaral ndax ku xam kàngam xam ne daanaan la ndax ku tegale huit combat huit victoire daanu woo kon daanaan la yow pap ñu ne ma damaa desee jox jox euh, combat bi ci rog yooyu noonu mu ñëw sama ba ñaanal ma nee ma demal loo fa def sa wërsëg la loo gis sa wërsëg la bu ragal dara ñaanal naa la ma dem daan jëla bu yomb daal di ñibbisi sama muy sama combat bi passé waaw. man maa ngi am ma xool sept combat sept combat laa am. ñaata victoire. cinq victoire. waaw sama commencement moom daa metti yaakaar naa. maag waaw Boy Baraak. sama mm-hmm. kooku moom magu làmb la xam nga mag la sax. Ah. ba léegi am na sama benn gaañ keroog bi ñu lay sàncee am na sama benn gaañ boo xam ne paa moo la daan. Ah. mais xam nga daf ma bonne expérience. Mm. damaa ñëw sama premier combat. xam nga dem naa góor ko nombu xam nga jaar fu ne ne damay yóbbu top top noonu mu calme ma daal di toog. Mm. ma ñëw bëriwaat ak africain daal di koy daan. ñëw bëriwaat ak Boursine Boursine daa demee daan. Boursine ba mu baal. sama premier grand combat. Hmm. man trois combats laa def ñu jox ma grand combat. parce que nag rakku mbër non ah. man baa ma ñoon comme ay combat yu may wutal nii ma combat. Hmm. man tey sama tour fu si làmb man maa ngi ñëfal sama bopp. ok moom sax danaa ma demalal sa bopp ñun esprit boobu lañ yor bokkuñu mbër mbokk xam nga rakki mbër yi xam ne leen tànnal yoon. am na mbër yoo xamante ne xam nga rakk mbër yoo xamante ne ñoom avant ñoo ne doon champion ay ñoo xamante ne da ngay ñëw rek daan la leen na. ñan la waaye xam na li may wax. xam nga li may ah, wax parce yow tey exemple. fii de rakk mbër yi ñan ñoo fi nekk. exemple. waaw ah. tey buñ Sa Thiès wulli. Hmm. xam nga loolu dañ naan loolu palmarès Sa Thiès lañu yokk rek. taay wulli nekk di toj. waaye ban taay wulli. taay wulli di toj. daan war nga maa daan su ma la daan war nga maa daan. mais mais sàcc sàcc. non maanaam maanaam moom champion la. te moom moo ne ci kaw xam nga. ñoo day mbëri ndaw lañ dañuy jël exemple ci moom. waaw mais tey amul mbëru doomu mbër boo xamante ne nen toll na fi Sa Thiès tollu à part xam nga Boy Niang mais xam nga Sa moo gën a yomb wax si gémmiñ daal. mais ñun bàyyi ñu ko xel sax. Ah, waaw comme Sa noonu comme li ngay wax ni naan doomu mbëri sonoon na. Ah, nga waaw comme Sa waaw ay Boy Niang am nga ay Boy ñaa yooyu day xaw a jël temps quoi. waaw ah. mais Sa Thiès ay mbo wax ñuy suivre sur Wassare ñu def ci làmb. at man daal maa ngi maa ngi bëri 2015. 2015 bi waaw laa bëree sama grand premier combat waaw. sa premier ñaata lañ la sa premier combat boobu. waaw 100000. yow daal nga ci di am ñoom tamit 40 yooyu la ñu jox. Abdoulaye Ndiaye moo ma ko fay 100000 waaw. man avant ma bëree arène sax fay nañ ma lépp 100000 si Mbapat. Sambay euh, Sambay euh, promoteur. Samb ñu koy nuyuwaale waaw musuma fay bi may bëreeg benn bëru caare instant champion la xam nga doo mën a tudd turam. Kolifay de. moom kooku sama seex la fii la ñoo bokkoon nekk. Hmm. sama doomu bàjjen la sama mbokk la. Brise de Mer la kon. bokk papa. doo mën a wax. non Ahmed Deme sama mag la. Ah, sama génération la kooku ki ma la nii. waaw yaa ma gën a xam daal. waaw baax champion la daal. te maa ngi ñaanal xam nga te sant bi ñun ñoo bokk caare di koy ñaanal xam nga de moom xam na. zoro bu Samba yi man a moo tax bu ko tudd. ko. waaw dëgg. mais su tojoon nga tudd ko. waaye kooku li toj sant bi daanoo daanoogul ci arène bi n'est-ce pas. bu wala bu daanoo bennoon bennoon la daanoo. ah bu tojoon nga bi sax moom toj na kay. non koy tudd. ko am na am na am na sept combat moom. kan benn defet la am. waaye du wax turam waaye. waaw waaye. soo tojoon bàyyi ma ñoom junior la tudd mbër léegi tojul waaye léegi tojul baax na. Ah. waaye du ma wax turam de. ah fii ñi daan mbapat dañ dañ koy wax bu doon koo xamante ne dëkkul caare. non dégg nga mbër xam nga tey. waaw yéen ñaar ah. moo too leen bëre. waaw ah. dañuy waxante dëgg moo rek suñu booy la. waaw du moom du moom. kon bëri yow tojoo moom moo. waaw kon tojul baax na. waaw ba ko ba pare toj nga. bu baax. caaray caaray fii man maa si gënoon xam nga rakku bàyyi ma njoon bi xam nga la ñuy wax. Hmm. gaa yi man lañ gënoon a bëgg a bëreel. mais amaana man fii maa fi gën a neexale ci mbëri caare yëpp. Hmm. barki alxuraan. mais bëri nga ak mbër boo xam te ne toj na instant bi raw na la soit mu baa nga raw ko. ci arène bi. waaw. ma xool ku ci mel ni bébé bis mi. bébé bis mi ak kanaat. am na ku ma bëre laa de si ñi ma bëri na de. mais ñuy waaw ñoo ngi daan ñoo ngi daan ku si mel ni libi libi door xaw ma. libi door bëri nañ. ak bal balaago mu bari ñi xam nga nañ lañ koy xamal général général mu bari ñi. bëri nañ. mooy bëri arène de. ah ok comme moom euh, ñangal lañ bëree sax loolu yàggul dara. dafa dafa ñëw ñangal toog fa lu tolloog deux semaines kenn mënu ko faa daan xam nga ñun dañuy campagne rek di bëre. léegi ma ñëw man ak Coly ñoo àndoon ak Badou Fall numéro 2 bi ñëwee xam nga gars ne kii moo fi ne kenn mënu koo daan boo ko daanee lii lan lay jox ak waa ñangal yi xam nga te man dem naa fa ba ni may ñëwee kenn mosuma faa daan waa ba léegi laaluma ko mu daanu. billaay laaluma ko kon mystiquement la. du mystiquement xam nga. ah dañoo xam ne. non moom te xam ne ñu bëreeg punkal. Ah. xam nga dama xaw ñëw rek xam nga jaay affaire gër yi wane ka man faalewu ma la daw dugg ci garde bi ma ne kuy jël tànk bi muy rasu ma rucceeku mu dóor dënn bi waaw ñun dañoo mën a bëree. mais mbër da mën a bëree mais damay dégg sax ñu naan mbëri moom. ah mën na ko. mais dafa lu ko manqué quoi. waaw ah. dafa a tapé. si kan man. waaw. Ah. ay loolu de maa ngi koy doog a dégg sama live. ay nañ da maa ngi koy doog sama live. Ah. barki Seydina ma instant yii dañ maa saaga sax. ah mais nañ da ngay parce que monté fit bi mooy que ni. am na booy yoo xamante ne instant bi ñu ci làmb ji. waaw mais xam nga da nga leen a moytu. man man man man avance musuñu kaa delloo sa sa si man. mais doo taam. barki Alxuraan. sama combat ak bébé Diène bi mu ko bi mu waree sotti. si mel na si la yàqoo. bébé Diène ba. bébé Diène daf ma soxore quoi fay nañ ma loo xamante musuñu ma ko fay si làmba. boobu kan moo bëggoon Sam Sambay Fall moo ko bëggoon. bébé Diène yow barki Seydina Mohamed. Cheikh Tidiane ñaa tamit noonu. fay ma ay yu seer man man man na ma fii du bëri ay mbëri ñàkk a fay de man damay bëree mbër yoo xamante ne dañoo am tur te dañ naan yi bàyyi ma ñoon jour bu si duggee du si génn. combat tay mu dee. yooyu laay bëree. nga ne Cheikh Tidiane mm. Niang ce que. ñooñu luñ ma ëppale. dañuy man man toj mbapat comme ñoom affaire bi arène la. Mm. man xale laa te sama yaram macha allah nangu na su sama entraînement ba simee ko ba taxaw. Mm. duñ ma ëppale dara te maa leen ëpp doole. Mm-hmm. ñooñu dañoo yàgg. Bébé am na doole de. Bébé Diène man la man tey télé laay waxee ku xees du daan ci làmb nga ne ku xees du ma daan ci làmb. ku xees du daan ci làmb non ma la joxoon avance am réellement ko. barki alxuraanul karim lu ma mën am ci làmb bëri moom moo ma ko gënal. bébé tey bébé jën jël fourrière moom mu jël dafa teggi mais maa moom suñu combat moo daaxoon bébé jën fopp. Hmm. moo daaxoon fourrière waaw. est-ce que du naan booy bi xam nga maa ko gën a kii maa ko gën a toj affaire est-ce lu ma gën a toj bébé jën ñaata combat ci arène bi Eh, est-ce que amul six combats xuma sept combats. waaw man maa ngi ci sept combats. nga naa may nii moom daa daanu na. daanaan la bëreel de. man xam naa man ay comédien laa bëreel. dafa daan rëg rëg. waaye mbapaan nga wax. loolu du daan bas. benn la nga la. ba ngaa am bas rek. am nga am nga rëg rëg bébé jën du combat. ah yow rëg rëg du la ko wax rëg nga xam te ne loolu daf koo métti. waaw ah, ba mu ko jàppaatee nu mu ko def. mais loolu garaawul mais daan na ah, loolu la rek mais bébé jën moom wax dëgg yàlla moom bébé jën dafa yéexee. waaw baax na yàlla nañu yàlla boole bañ daje. moom lu ma mën dem moom ko gënal. Mhm. waaw ndax xam nga rek façon bëre bi muy bëree noonu daf ma neex. Mhm. waaw dama koo mane. Mhm. waaw te comme te moom xam rek jëlagul avance bi comme te jëloon na ba ba ñu war a dem CNG régulariser. mu delloo xam nga. kon nu ma fi ne barki Seydina Mohamed. est-ce que neewul daan kii sama ménagère Père ma yëgal yi am jën taxaw na. ba gars yi commencé dawal affaire yi. yaa ma gën a xam. ñan ñu ma daan. man Bour Sine ma daan. Mm. ak Boy Diop. ak Boy Diop. waaw dafa doon yaa muñal kàngam. kàngam. waaw tey daan Jackson. Mm. mu ñëw daan ko. ah kàngam bi daan Jackson junior. waaw yii bi Jackson junior doy toj de. waaw ah, ak ñi muy ñi muy bëreel rek. ndax ki kat man ni muy toj mënuma sax ndax ki ka daan maa ka daan. mais mais mais mais Jackson xam bu ko waxoon ay baamu ñoon junior. waaw ah. danaan la daan la kuy kooku sax. waaw moom. Ah. bi muy bëreeg kàngam. Mm. kàngam ay victoire la tegale. léegi kàngam li ma booleeg moom maa ngay nuyu à passage xam nga na dafa ma may sens mm. ba ñu ne année balance moo tax mu jël ma na dafa année balance mm. saison bi de catewaat mm. sam proposé ko man mu daal di may may sens mu daal di daan xam nga maa ngi koy bu baax si atu boobu mu def moo tijj affaire waaw Pam Ndoye nga wax di kii bàyyi ma ñoom junior la waaw yow avance Jackson est-ce que yow ñeme nga koo jël yow bàyyi ma waaye yow waaw avance kii sax xam nga waxuma waxuma la Jackson de avance kii nu mu tuddati sax jigéen wara sax dama koy jël nga may Jackson. Jackson waalo waalo la de. <laughs> waaw man man alab lébu day xeex. baax na. c'est que ñooñu xam nga du mën a ne fii di wax si ñoom. non parce que man ay ñoom yaay yaay nag merci. man daal bëgg naa ko xam boppam. ndax yow nee nga doo mën a wax si ñoom kon nag. non du leen may bës di tudd seen tur. mais yàlla xam na waaw man man damaa xeewi ndax man sans victoire laa toog ndax Jackson moo bëri xew. waaw nu man mu bëree daaw mu bëree daaw nga ne moom mu xew. waaw mais ba léegi bosam dafa cartonné de. man sans bos cartonné man nan laa daane. man nan laa benn combat quatre kele yoo xamante ni amul taxaw en ba ni sama gën tëddee nga naan ma fii la. koy jaar mais Jackson xanaa gisoon nu mu def. man ma dóor nit mu daanu. man nga laa mu daanu. Jackson bosam bi ba léegi. ah waaw mais archive la quoi te champion ah, la daan. Pam doy champion la Jackson tamit champion la. Ah. waaw mais même génération la rek. man làmb na ma see kontaan ndax man yàkkamtiwuma samay bagage mais tey damaa xam ne ñun dañuy bëre farfos. barki alxuraan. ndax man ma am lu ma gëm ba pare. ëpp ñu ma doole dàq ñu ma bëre. te sama ginnaaw baax na macha allah. mais mi lan waaw ba tey cuulun. parce waaw non maanaam ne li ñu ma ëppalee ne mooy lan. waaw ah. xam nga da gis gars yi dañuy fecc tuus xam nga neexal def mais yombal bien vrai que nag ku la gis nga xam ne kii. waaw basa ngi nii ndax mën naa fecc wala mënumaa fecc. Eh, man ma tuus esaat ñu tu ma tuus esaat ñu oo ma ci kaw jox ma xaalis bu bëri nga may tu waaw tooy si waaw tooy tooy eh. baax na waa mais si géew bi tooyu ma. xam nga ñëw làmb di kii jëngal xaw a tooy loolu daal mooy a kii tooy. coolu damaa tooy. coolu bàyyi ma ñëw sax maa gëpp xadar. Eh, non non mais da barke yàlla nga xam nga ni waaw tooy si nan. ah parce que gis nga da ngay gis xam nga ñoom Jackson yi. tey xam nga soo ñëwee stade ak sa lamb caay caay bi ciy am. xam nga am ñoom tamit dañuy caay caay. waaw ci loolu man damaa naturel xam nga. man man du ma du ma du ma complexe te du dem ba stade di wane loo xamante ni nekkul sama jikko li ma mel nii noonu laa mel. su ma demee lamb damay xam fi ma war a yem su day bëreewu ma mën naa dem ba stade ba yow sa doo ma gis. moom laa waaw ah. waaw di passé ñii sax ñoo ma xaw a gis ñoom bas daa demee interrogé may wax mais man man su ma ñëwee damay dem directement tribune la dem toog. Hmm. bu ma du caaree ba hmm. waaw man man habitude boobu laa yar. Hmm. amul ma xam nga rek dem si média yi di wax ak yooyu noonu. mais bu dee làmb moom waa coolul mais maa ngi sant yàlla noonu musuma ne balance. promoteur yaa ngi may fay xaalis bi weex tal maa ngi bëre. waaw. mbër ah, fi ma jëm. waaw bi ak bi déwén rek incha allah. kon ren daal incha allah waaw ndax combat yi ñoo ngi may wax combat yu baax. Mm. mais boyu man du man mosuma bëre lu yomb man làmb boo ma waree daan ñi ma daan war naa leen daan suñu ma daanee war nañ maa daan. Mm. waaw moom waa yi nga xamante leen jox ay ay paa ak ay ñoo xamante ni man ay duñu ay mbër daal. Mm. man làmb su ma la waree daan war nga maa daan su ma daanee war nga maa daan. mos aw ma yoon yoonu làmb yomb daal. Mm-hmm. sa relation ak Baye Mandione. waaw Baye Mandione kooku sama mag la ñoo bokk ndey ak Baye. waaw mu doon mag ju baax mag ju ma yërëm amul lu ma dul defal bàyyi ma ñëw damay am combat sax li li may jox moo ëpp li ñu may fay fuuf. na loolu moom tàmm na ko sax ak ak man depuis bi nekkee xale ba léegi moom moo ma yor bi sam papa gaañoo ba léegi moom moo bëggul lu ma naqari bëggul lu ma waaw yaa ma gën a xam daal mënuma wax si moom lu bari xam na ni maa ngi liggéey maa ngi am sama xaalis mais day ñëw ne am jàppal si lii barki alxuraan. xoolu lu ma am ak yëpp lu yëre rafet waaw yëre nu mu naay see xam nga. mënuma wax si moom lu bari daal ndax sama xol day fees. waaw suma mag la te yërëm na ma. waaw di nga ñaanal xam nga li des si waaw làmbam mu doon ay ndam xam nga te moom du sonn ci live am ndax xol bi moo rafet. bàyyi ma ñoon cëfar cëfaram ci ci làmb layam mais tey waa koñ bi sax dañuy ñëw naa ma ana ñoon fu mu ne barki alxuraan moom boo néegam lay jëm bu amee lu mu war a dox dox ka ñëw toogaat. garant bu kuul joxe cër tamit. billaahi di nga ñaanal xam nga moom jabaram ku ci mel ni moom amaana ñun ñàkkuñu yaay jabaram moom ñuy toppatoo te nangu na te yërëm nañu tamit waaw te man mel na ni jigéen ñi mel mën naa ne njoon bàyyi ma njoon waaw jabari mbër yëpp moo si gën a naa la jabar mais day tegoo li nga xamante ni jigéen moom lañuy tegoo parki seydinaa Mohamed jël suñuy yére fóot bale kër gi ménage toogu añ yi neex daal ñuy jox loolu yombatul ci jigéen. dëgg la billaahi di nga ñaanal xam nga sëyam moog bàyyi ma ñoon seytaane bañ see dugg. waaw mu jur ay doom yoo xamante ni xam nga ay avenir lañ ëllëg. allahumma. Hmm. à part bàyyi ma ñoon. Hmm. tey su ma nee Balla moom suy bëree moom xam nga. Hmm. damay gis sam bopp moom bu baax. waaw ndax xam nga istilam dafa ma neex quoi ci làmb. Balla Gaye moo amee combat rek xam nga ni Balla Gaye am na combat boo bëriwul xam yow làmb ji du saf dara loolu ñu xam nañ ko. Mm-hmm. waaw mu doon daanaanu làmb xam nga man làmb bëgg li muy def. Mm-hmm. waaw loolu moom neex na ma ci moom trop. Mm-hmm. te avance day euh, bu jëlee avance day wax loo xamante ni day jaaxal Sénégalais lu ko neex lay wax xam nga bu bëree pare pare na ci. waaw loolu neex na ma ci moom trop. waaw mais à part ñeneen ñooñu nga wax amul si mbër yooyu noonu amul gisuma dara si ñoom. ku si mel ne moom loo am seen ak ñoom nga jot a tudd. Hmm. loo xamante ni faanaa la waaw Balla moom macha allah. Hmm. Hmm. noo nu ma gisee. làmb. waaw làmb làmb dafa neex de. làmb moom bu la leer nañ see dugg di dute. yow moom nga jëlaat say bagage ndànk bu dee da ngay liggéey nga dem liggéey bu dee daa am looy def nga def ko. waaw ndax làmb moom day fay man aw ma si tànkee ginnaaw tànk kanam laa ci am. kon ñaan doxul d'accord ah man samay kase vraiment muy gën a yokk waaw. samay kase muy gën di yokku maa ngi sant yàlla bu baax a baax maa ngi ciy am ay connaissance ñu ngi may jàppale. lan li ma gën a marqué sama làmb man damaa bari sama combat passé ba sa semaine ba sama papa gaañu loolu mooy sama combat kàngam nekkatul lu may fàtte si àdduna ndax sama papa dafa ma téye dafa ñaanal bay jooy barki Seydina Mohamed nee ma da ngay am ndam ndax ni nga sonnee ci man ni ñu ma yërëmee boo demee di nga am dam joo xamante ni yàlla yàlla na la yërëmee noonu loolu la mujjee wax te jour combat ba ci ëllëg sa laa gëj a gis ba léegi. ba ni mu génnee àdduna xam nga loolu xam nga te bëggoon na sama làmb bu baax te amoon na ci man yaakaar amoon na ci man yaakaar bu baax a baax billaahi amaana sax dañ naan kii ci man la gënoon am yaakaar comme joon ba depuis ma nekkee xale bëreeguma sa arène ba pat la dalaam ci man yaakaar mais tey mu ngi si dëgg ñun ñoo ngi ci fen léegi yaakaar gi ma ci man damay ñaan yàlla mu bañ a tas rek na mm-hmm. Mm-hmm. noonu laa sonnee nag. waaw bëgg naa ko de soxna. soxna comme ban soxna. waaw comme xam a am soxna rek. Mm. di entraîner di duy rek. Mm. xam nga yi bu fi indee tëbal la yi naa ma mbër nga. Mm. gars yi tamit dama soxor de. waaw mais am nga koy bëgganteel. waaw am naa ko may bëgganteel kay. waaw. am naa ko moom bëgg na ma trop man waaw. kon am nga yaakaar daal mën naa nekk soxna si quoi pour ah, bu ko yàlla tuddee ndax sëy moom yàlla moo ko takk ci aras. Hmm. bu ko yàlla tuddee moom day am. waaw hmm. ah, des fois mu sonal ma ci takk ma takk ma. waaye hmm. man pareegu ma nag vraiment. <laughs> waaw tey tey maa ne xam nga rek moo dem marché am naa ceebu jën lay togg rek. ñu moom suñu kër weeru kër un mois ceebu jën. yëpp. dara ah, ay lébu lañ. ay te dañoo xam ceeb lu mu laaj. ñu koy def. Ah. sa jour ceeb bi day gën di neex. Ah, waaw hmm. di nuyu xam nga ku si mel ni sama gars yi ñoom Sora ñoom Tamsir sama gaan bi toog ay ñoom laay laay sum patron ak ñoom xam nga ñoom sama ñoom Arona sama boy aada di leen nuyu bu baax a baax a baax yow tima amuñu aw sa fay xam nga na lii yombul ak bas sa caméraman ak jiili jiili nekk mu ñëw liggéey ndax lii. corona bi yàlla moo ko tegaate ku mu war a dalee daal. tàppal na trop. Mm. non mais man maay jabar man la yebal. nekk waxam ju bëri jëf ab ragal la. non man la yebal man maay jabar yi instant bi gars nag ñu ngi ñuy xool ba xam jëkkër jeeg jabar ji a tayal. li moo gën a tayal nag yow ah. yaa ngi def sa liggéey. Ah. corona béykatee di. kon maa gën a kii kon. waaw yow kay yow kay gaynde nga yow. <laughs> yaa ngi gën a xam mais kontaan mm-hmm. caare yi ñëpp. Mm-hmm. mbëri caare mag leen sant bu baax ku di ñaanal ñoom kilifa yi combat mi jëm xam nga moom général yàlla may ko ndam di ñaanal ñoom Reug Reug yàlla may leen ay combat amet dem combat mi jëm tam yàlla may ko ndam Brise de di ko xam nga mastaw di ko wax xale bu ndaw la waaw ma mag la man papa ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay waaw uh-huh. di ko wax combat mi ñëw xam nga yàlla na ko si yàlla may ndam uh-huh. waaw di nuyu mbëri waa Thiaré di féliciter Badou Fall numéro 2 tamit uh-huh. mbër ak diine bàyyi ñu seet si ki nga xamante ne moom mooy ma Mandione Junior gis ngeen ni dama sonn billaay dama sonn mais lépp pour yéen di ko bégewaat nag bu baax a baax ci disponibilité parce que man ba ma gisee mbër buy wax rek daf may neex quoi ndax sànq dama kii woon dama ne woon las mais mbër bi daf ma yee quoi te man genre yi laay bëgg di ko ñaanal jàmm ak salaam mu xam li mu bëgg yàlla ah, mu àgg fu ko xam naa ne mag ji tamit am na ci moom confiance ndax tout le temps danaan mag kaa jël si Baye Mandione junior kon donc bëgg yaakaar moom mooy wax loolu moom Baye Mandione mu nekk suñu nit nekk suñu xarit nekk suñu frère. sama boy la sama la di ko ñaanal jàmm ak salaam moom su baax soosu noonu mais man ki may jaajëfal chaque jour duma taay di ko wax muy sama séeréer bu rafet bi euh, bas Euh, Basirou Diouf sama séeréer bu nice bi naan la bu la bu ma bàyyi bu ma yàlla bëggee na ma bàyyi ak yow yow mi nga xam te ni day sonn loolu nga ne ma acca fonce ñu dem parce que nee naa liggéey bala moo gën a neex am ñu lay encouragé mais ñi nga xamante ne ñoom ñu seetaan euh, sur Wassare TV aw ma seen fay parce que yéen yéen ma gën a gën a encouragé gën maa doole ndax dañ ne doole jën ndox mais yéen yéenay suñu doole kontaan nañ ci yéen bu baax lépp lu leen bëgg rek dañuy dem baax maa sañsee sama bopp Basiru ngir yàlla mbër ak diine rek rien que pour vous jaajëf